diine islam moo moo moo mel noonu mën ngaa nekk ku gën a suufee si sa si sa askan waaye joxe gi ngay joxe sa bopp suñu borom loolu mën naa yokk sa daraja ba nga nekk ka ca gën loolu tamit mën nañ ko cee jàngat bu baax a baax ngir ne ngëneel moom si sunu borom rek la nekk. sunu borom moom mooy mooy mooy wax mooy moo xam ki gën. te ki gën it nekkul ni maanaam. ku ñuul si ci der la ci ñuul wala ku weex wala arab wala ku nga xamante ne mooy non arab. genre yooyu maanaam képp ku nga xamante ne rek maanaam dëgg ngaa baax rek da ngay sopp li nga xamante ne mooy. diine gi fexe wéral sa imaan képp ku gën la gën a set imaan dàq laa muñ ngëneel moom daanaka foofu la ko suñu borom di roof rek maanaam ci kooku lay nekk kon dañuy bàyyi sëñ Kajaali mu waxaat jeexitalu ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba ñu defee fatu Makka dañoo dellusi fi nga xamante ni tamit mooy Médine te ba ñuy dellusee Médine am na xew-xew bu màgg a màgg ba fa xew mooy dëddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te maanaam dafa amaat ñàngat bu am solo bu ci amaat ginnaaw ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëddoo Seydina Bilaal mi ko doon noddal amoon na yëg-yëg bu amoon bu mu amoon ci loolu noonu. kon dañuy bàyyi rek sëñ sëñ sëñ Kidiane mu leeral bu baax.
waaw muy xam naa laata ma ñëw foofu sax. xam naa mun naa dugg benn yoon sax si wàllum li nga wax ci der bu nit der bu.
waaw waaw waaw loolu tamit buñ ci taxawee day gën a am solo rek.
mot a leeral la daanaka wax nga ko sax leeral nga lépp sax. mooy nit nit nit nit moom daanaka yonent bi sax wax na ko. du si daram wala waaye ci ragal yàlla kem ragal yàlla fu mu toll rek noonu lay gënee moroomam waaw kon foofu day wane ne bilaal ak ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñëpp yonent bi lu mu daan xool si ñoom mooy ragal yàlla.
ragal yàlla ragal yàlla bu kawe bi ne si moom sell gi ne si moom. fu kem ni ni mu toll rek moom noonu la la daan. fonkee noonu la la daan wóolu. waaw kon moo waral bis boobu màgg boobu bi muy dugg. ñu ko waxee Usaama ak Bilal ak ñeneen ñoo xam ne daanaka ay nit la ñoo xam ne ci ay classe sociale yu suufee lañ leen lañ leen dugaloon ñoom la yonente bi àndoon ñoo ko dar waaw loolu muy muy muy muy wane ne lislaam moom fa suñu borom la jógee te mbool yonente bi tamit dañ ko yónni ci mboolem mbindeef yi yónni wuñ ko ci arab kese wala nit ku weex wala nit ku ñuul kese waaye ci mboolem mbindeef yi moo tax ñëpp ànd ak moom waaw xëy na mun nañ wax ne ci ci ci nit yu ñuul ñu àndoon ak yonent bi ci saxaaba yi mun nañ wax ne bëri woon nañ waaye dinañ ci indi ñenn rek ku mel ni am na benn jaam Seydina Omar boo xam ne daf ko goreel nga xam ne kooku ci waa ahlu badar la bokk xare badar moom moo njëkk faatu sax ci xare badar ndax laata sax duel ubayda bi di am moom da doon naan ci lañ ko jam fett mu faatu muy mixja mixja mawla omar ibnul xataab nit ku ñuul la woon ba pare dafa am yu bëree bëri yu mot a xam ci moom mooy bi ko Seydina Omar gorelee dafa ba tey dafa sekk kolle rek Seydina Omar nee nañ guddi mook Seydina Omar ñoo daan ànd di naafi la guddi di jaamu yàlla guddi mu doonoon borom pas-pas bu kawe kawe nga xam ne borom yitte ju kawe la woon ci lislaam waaw te nit ku ñuul la woon ni bilaal di di it jaam bu ñu goreel waaw kon moom bokk ci waa axlu badar bokk ci ki njëkk faatu ki njëkk shahid badar waaw keneen ku ñuul nit ku ñuul miqdaad ibnul aswad wax nga ko sàng waaw nga xam ne moom ci mboo ci ñi nga xam ne ñoo waroon fas yi ci badar la bokkoon defoon fa discours bu kawe boobu nga xam ne ku teewlu waxtaanu badar di nga ko dégg moo doon wax yonente bi ne boo ñu doon yóbbu ba barxul barxul imaat dinañ ànd ak yow duñu dellu ginnaaw duñu du ñu wax mukk li waa bani israel waxoon Muusa naan ko demal xeex yi ñun ñu ngi lay xaar waaye dañ la naan demal xeex yi ñu ñu ngi ñu ngi topp si yow foo xeex rek dinañ ànd ak yow xeex xeex lee la waaw kon kooku miqdaad ibnul aswad wala miqdaad ibnu amr nit ku ñuul la woon waaw am na tamit ku ñuy wax rabaax rabaax mawlaa nabi kon foo leen déggee mawlaa rek mooy mooy jaam bu ñu goreel ab jaam la woon ci yonante bi salallaahu alayhi wa sallam mu goreel ko rabaax tamit mun nañ wax ne ab bëkk néeg bu jege la woon yonante bi salallaahu alayhi wa sallam saxaaba yu mag daan nañ bëgg yonent bi bu fatoo saxaaba yu mag bu ñu bëggee gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci rabaax bii lañ daan jaar waaw bëkk néeg bu jegee woon yonent bi la woon te ñuul nit ku ñuul la woon Salim Mawla Abu Huzayfa waa Badar la woon tamit Salim bi bi ci gàddaay gi bi saxaaba yi di yàgg Medine moom moo daan jiite ndax moom moo leen gënoon a mokkal alxuraan gën leen ko dégg. waaw yonent bi daan na digle naan ñu ku bëgg ku bëgg daal xam alxuraan na nga dem ci ñii. te Salim ci la ci la ko boole. Salim ab jaam la woon. ci ci Abu Huzayfa mu mu goreel ko. Salim di saxaaba bu mag bokk ci man ci waa ahlu Badar fekkee Badar. mu mu bokk ci ñi nga xam ne moo yoroon na drapeau muhaajiruun yi ci xare Yamaama. foofu la shahidee ci wetu Abu Huzayfa te nit ku ñuul la woon tamit waaw. mun nañ bu bu ñu demee dina léegi bu ñu xoolee Ummu Ayman. Ummu Ayman muy waajur Usaama mi nga doon wax sànq. Usaama ibn Zayd Ummu Ayman. cosaanam Éthiopie la nit ku ñuul doon ci soxna saxaabi yi waaw moom it xam naa di faaw ñu beral ko ab waxtaan ci dundam umu ayman di di di di soxna ci zeyd ibn saabit ci la mooy waajuru usaama ibn zeyd usaama ibn zeyd ni ko yonent bi bëggee woon rek kéemaan la kon bu ñu waxee umu ayman nit ku ñuul la woon usaama nit ku ñuul la woon usaama moom daanaka yonent bi da ko defoon da ko fonkoon ni mu ni mu da ko doon boole maanaam comme ni mu fonkee woon Seydina Hussein ak Assane noonu la ko fonkee woon ñoom ñett ñëpp la daan fonk bu baax a baax Usaama nit ku ñuul la woon Ummu Ayman nit ku ñuul la woon ci lansaar yi Ubaada ibn Saamit nit ku ñuul la woon waaw Ubaada ibn Saamit dafa ñuuloon ba nga xam ne bi jullit ñi di ubbi Égypte ba buuru perse kii copte yi mu ne nag nañ ma yónnee seen kenn ci seen njiit ma waxtaan ak moom Amr ibn al-As Ubaada ibn Saamit la yónnee bi bi buuru Égypte bi gisee Ubaada ibn Saamit dafa tiit ne nit ku ñuul kii mooy seen njiit saxaaba mboolem saxaaba yi fa newoon yépp ne kii kii nga xeeb nii moom moo ñu gën fuuf ndax dafa àndoon ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñu gën a tedd ci lansaar yi. boo ko nangu njiit moom mooy suñu njiit boo ko nangoo mooy suñu njiit. mu ne kii soril leen ma ko dama ko ragal ndax ñuulaay bi Ubaada ibn Saamit ne bu dee danga maa ragal ndax sama ñuulaay na nga xam ne am na junni ñu nekk ci armée bi ñoo xam ne ñoo ma gën a ñuul gën maa ñàng. kon day wane tamit nit ñu ñuul yi amoon nañu nekkoon nañ nombre bu bari tamit ci ci ci armée yi. waaw. Ubaad ibn Saamit mujj nag dem Cham fa lañ ko denc xëy na mun nañ ci waxaat Muhammad ibn Maslama am na ñu naan tamit nit ku ñuul la woon Muhammad ibn Maslama ansaar la woon bokk ci banu Abdul Achal. kon waaw mun nañ indi exemple yu bëree bëri bëri. waaw bëri na moom waaw ci ci ci nit yu nga xam ne nit yu ñuul lañ. jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ginnaaw yonente bi tamit am na ay borom xam-xam yu bëri ñuy tudd ay nit yu ñuul lañ. ay nit yu ñuul yoo xam ne seen tur siiw na lool te ay nit yu ñuul lañ xam naa yooyu dinañ ko gën a. yaatal dëgg la waaw diine islam kay yaatu na moom.
diine islam moom nit ku ñuul moom desee am wàll xataluñ ko si. bet boddiwuñ ko si wax dëgg yàlla ndax. l'islam xoolul loolu suñu borom xoolul der.
dëgg la kon kon kon noonu la demee woon.
dëgg la dëgg la lu wér sax lu jar a leeral tamit ñu xam ni maanaam jamonoy saxaaba yi nekkul woon ay ay ay ay naar doo nga fa nekkoon. maanaam nekk ci diine gi. waaw nekkul woon ay ay ay ay ay ay ay ay ay nit ñu ñuul kase tamit ñoo fa ñoo ñoo daje woon. maanaam ànd ak yonente bi. mu nekk seen njiit. waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa boole woon nit ñu ñuul ñi nit ñu weex ñi ñëpp boole yilif. doon seen sang ñëpp di ko warmaal ñëpp jox ko kilifteef bu nga xamante ni waaw. suñu borom foofu la ko teg. fi ko suñu borom teg rek képp kenn kenn ku ci nekk rek da loolu da doon dellu si waat sax si sa si sa si sa jeexit da daan jeexit si sa jëmm ji di jeexit si sa xol. ba maanaam da nga ko koy jox bu baax a baax yi ngir ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy gën gi mindeef. moo gën ñëpp.
am na lu ma. lu ma bëggoon kiiwaat tuuti rek.
waaw waaw ba tey nit ñuul yëpp. yonente bi nee na bilaal mooy seen seen seen seen mooy ki nga xam ne mooy seen njiit ci lislaam ndax yonent bi wax na ne asaabiqul ana saabiqul arab arab yëpp man maay seen njiit njiit waaye as asaabiqul abasha saabixu suudaan wala abasha Soudan.
bilaal saabixul fursu mu ne salmaan waaw Salman al Farisi.
saabixul ruum mu ne suhayb Suhayb waaw.
waaw su waaw kon ku ne rek am na koo xam ne moom moo daan jiitu boo xam daan na wax tamit ne sangu Mhm.
nit ñu ñuul yi mooy Luqmaan ak Bilaal waaw kon kon euh, ni nga ko waxee rek xeet yëpp daal ñu ngi yoon Waaw, daje ci ci ron dëgg yonente la.
bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg la parce que ja- da lay da- loolu tamit da nga ciy jàngat nekk euh, ci ci jamonoom euh, mboolem mboolem mboolem réew yi nga xamante ni ñoo nekkoon réew yu gën a mag ci àdduna bi ñoom it dañoo dajale woon dañoo dañoo daje woon ci ron yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Mhm.
Euh, ni nga ko waxee rek mooy Suhayl Mhm.
nga xamante ni byzantin la ak ki nga xamante ni mooy Salman Salman al-Faris.
perse la woon Euh, Bilal ñoom Bilal nga xamante ne waa Abi- Abisi Abissien lañ Mhm.
euh, Abyssinie lañ dëkk Mhm.
Euh, c'est- fa la fa la fa lañ bàyyee fo- foofu la seen kii seen origine nekk Mhm.
waaye loolu yëpp dañoo dañoo ñëw euh, nekk ci ronu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mhm.
euh, ngir dundal li nga xamante ne mooy islam gi Mhm.
Euh, nga xam ni kon islam gi moom day islaamu adduna bi yëpp Mhm.
mboolem waa adduna bi la Euh, waaye yamul ci benn benn benn yamul ci benn dëkk Mhm.
yamul ci benn xeet waaye mboolem xeet yi la ak mboolem réew yi adduna bi Mhm.
yëpp la Euh, kon loolu it muy loo xamante ni eh, bunt la bu am solo boo xamante ni eh, jaadu nañu jàngat ci Mhm.
ci te jaare ko ci dunduk Seydina euh, Bilal radiyallahu anhu kon dañuy du- duggaat rek fi nga xamante ni eh, mooy Médine waaw ngir ne Médine moom daanaka waaw ni nga ko waxee sànq daanaka euh, mooy yonente bi mu fi jógee ñu ngi la demee daanaka saxaaba yi ñi- daa ñëpp jaaxle Mhm.
waaye rawatina euh, Bilal Bilal nag moom moo si gën a jaaxle ndax euh, nanguwutoon toog Medine sax xatoon na lool si moom waaye takkoo gi mu takkoog Seydina Aboubacar moo ko fa téye woon daanaka dëgg la ni mu féete woon yonente bi yëpp mu mujj ko féete Seydina Aboubacar mi nga xam ne moom moo Est-ce que- mooy xalifatu rasulillahi nekk bëkk néegam euh, di taxaw si buntam euh, féetew ko ko tamit foofu nga xam ne bu Mhm.
ndax yonente bi daan julli it Mhm.
Bilaal moo daan yor xeej xeeju yonte bi bu gàtt bi bu ñëwee ba yonte bi war a taxaw fu mu fu muy jullee mu samp ko ci kanamam waaw Mhm.
loolu tamit daan na ko defal Mhm.
Seydina Aboubacar bi mu demee nag ba mënatula muñ toog Mhm.
Médine ci la Mhm.
ñaan Seydina Aboubacar daal ne dama bëgg dem daal ci jihaad bi Est-ce waaw que- ndax jihaad ndax Seydina Bilaal ku ku ku kii woon la ku xëroon la ci ci jihaad ci yoon ci yàlla jihaad est-ce que mu ne ko daal gars yi ñu ngi dem jihaad dama bëgg nga yeew yi ma mooy mën di dem tamit ci jihaad yi dëgg la Seydina Aboubacar ne ko déedéet mu ne kon danga maa goreel ngir téye ma sa wet rek Euh, Seydina Aboubacar nag ci la ko bàyyi mu dem am na ñu ne yoon boobu la dem Cham Cham.
am na ñu ne da ko téye waaye Seydina Omar moo ko mujj bàyyi mu dem waaw jamono yi seen waaw jamonoy Seydina Omar waaye lu si mënti am daal mujj naa dem Cham loolu yëpp nag ndax euh, toog Médine bi diisoon na ci moom euh, Médine goo xam ne gisutoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam si zahir da ngay bëgg rek dem rek jihaad waaw moom foofu foofu la féete woon foofu la mujj woon féete waaw léegi noddatuloon keneen am na benn waa fàtte turam kooku moo daan nodd léegi Eh, ab jaam la ci ci ci dama fàtte ci kenn ci saxaaba yi waaw saad la tuddoon daal moom moo daan mujj féete woon nodd bi waaw jaam la woon ci kenn ci suma jum abdourahman ibnu awf wala eh, kenn daal ci kilifa saxaaba yi moom moo daan féetewoo nodd gi ci masjidu nabawi noonu la rek loolu yëpp day dugg ci relation bi mu amoon ak xalif yi ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko waxee Seydina Omar euh, Seydina Omar tamit Bilaal fonkoon na ko lool moom it mu fonkoon lool Seydina Bilaal waaw ndax euh, daan na wax naan euh, Aboubacar Seydina wa ataqa Seydina Aboubacar muy mooy suñu sang moo goreel suñu sang dëgg la waxee waaw Seydina rek Bilaal la si jublu ci la boroom xam-xam yu bari naan kon euh, wax ab nit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad kon loolu lu war la kon sagam Seydina Omar moo koy wax Seydina Aboubacar ak Seydina Bilal aussi kon wax ko ci yonente bi wax Seydina Muhammad lu war la sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam kon kon noonu la kon euh, Seydina Omar da ko daan woowee suñu sang ah, ku Seydina Omar do- fonk ba li la woowee suñu sang moom kon loolu lu kawe la dëgg Euh, Seydina Omar amoon na doon bu tudd Abdoulaye Abdoulaye ibnu Omar.
Abdoulaye ibn Omar Abdoulaye ibnu Omar dafa amoon doom tamit bu tudd Bilal Bilal Bilal ibnu Abdoulaye ibnu Omar Mhm, surtout Seydina Omar la bu tudd Bilal mhm, kooku nag eh, waykat bi di ko dag naan Bilalu Abdoulaye xayru Bilal ne ko Bilalu Bilalu Abdoulaye bii de moo gën ci Bilal yi mhm.
Seydina Omar ne ko ne ko déedéet gàgganti ko ne ko mukk ne ko bal Bilalu rasulillahi xayru Bilal Ah, Bilalu ah, rasulillahi mooy xayru Bilal ah, Gëmtaan la waaw waaw waaye Bilal Abdoulaye moom déedéet du xayru Bilal Bilalu rasulillahi mooy xayru Bilal dëgg dëgg waaw kon loolu tamit eh, gàgganti na ko kii kooku doon tagg sëtam boobu Mhm, waaw Eh, ba tey Seydina Omar ñu ko waxee woon bi Mhm.
muy dem Cham sooy ba ubbi dëkk boobu mhm, ba ñu jox ko caabi dëkk bi mhm, ba mu laajte Bilal mhm, mu ne ko ah ñëpp dañu ngi sàkku ci nga noddu tey mhm.
Bilal xaw a kii mu mu ne ko nang- no- noddal rek Ndigal la waaw ndigal jox ko ndigal mu nodd ndigal la waaw Mhm, Bilaal bi muy nodd tàmbalee nodd dëkk bi yëpp ne tekk ñi nga xam ne fekkee nañ jamono yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm, mhm.
boobu saxaaba yi fees Mhm.
nañ fa dell Mhm.
bëri woon nañ fa lool Dëgg la jamono jooju ñu bëri ñu ngi dund ñëpp ne tekk euh, dégluwaat bi ñu déggee Bilaal di nodd ba àgg ci Seydina Muhammad Mhm, ci lañ yaakaar ci lañ mhm.
seen xel yëpp demaat ci jamono yonent bi daanaka bis boobu ñëpp a doon euh, jooy Bilaal tamit munta àggale Mhm, waaw loolu Mhm.
mooy moo jiitu am na ñu ne tamit Bilaal toog na ba si yàgg gént yonent bi fekk Mhm.
dafa dem Cham yàggut Mhm.
gént yonent bi Waaw.
sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko Bilaal ana noo ma mën a defee nii mhm, nga dem nii rek euh, Dëgg la.
bàyyi bàyyi ma nii mhm, Bilaal nag ci la am kersa mhm, jëlaat gëléemam daanaka dafa wax soxnaam rek ne damay dem mhm.
ndax dafa dencoon sox dafa dencoon euh, rakku Abdourahman ibn Awf Xaalata bintu Awf la dencoon Xaalata.
ak Mhm.
benn soxna boo xam ne waa Cham la woon Mhm, mu tàggu leen ne leen maa ngi dem expliqué wu leen sax lu Mhm.
bëri ne Médine daal laa jëm dëgg noonu la la kii dem Mhm, àgg Médine ñu àggee Médine mhm.
ziar barab yonent bi Seydina Hussein ak Assane yëg ne Bilal ñëw nañ ñu ñëw si moom ne ko tey moom faaw tey moom yaay nodd Euh, ñu ne ko faaw rek nga nodd nit ñu bëri ñu ngi koy sàkku Bilal bi muy noddaat loolu tamit moo amaat nit ñi dañoo génn si mbedd yi Mhm.
yaakaar ne yonent bi xanaa daa dellu si waat Est-ce que- est-ce que- waaw est-ce loolu que- tamit di lu yéeme yéeme Mhm, yéeme. ndax nit léeg-léeg mhm, mhm.
da ngay xool léeg-léeg nga déglu benn xasida mu fàttali la jamonoy sëñ Saliou dëgg la waaw comme man su may déglu raaya Mhm, euh, sëñ Moustapha Diop bu Isbu Tarxiya dëgg jàng la dëgg la sama xel day dem ci sëñ Saliou dëgg la ak rab yi yaakaar naa yow it yaa yaa ngi naan mooy bu mooy bu sëñ may boobu sëñ may waaw ii waaw, loolu dëgg kay la.
taw feex la moom waaw loolu ay nostalgie loolu yu am moom da doole ngay la si dund nit sëñ ñoo sëñ xam saale bu baax a baax a ne baax waaw, noonu noonu nag la demee Est-ce noonu que- nag la demee nga xam ne dalay dalay yóbbuwaat fu sori daanaka la, dëgg la.
dalay fàttaliwaat jamono jooju Mhm.
day mel ni yaa ngi koy dundaat dëgg la dëgg la bi muy nodd nag Mhm, ba nit ñi xàmme baatu bilaal seen xel demaat ci yonent bi ñëpp a Merci.
génnaat yaakaar ne dëgg la xanaa yonent bi daa dellu si dëgg la waaw bilaal nag ba tey su àggee ci turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du mun àggale nodd bi Mhm, kon loolu tamit day wane ne bilaal ku amoon bëgg la ci yonent dëgg bi mhm, ku bëggoon yàlla la ndax Mhm.
ahadun ahad bi mu doon wax dëgg la waaye tamit ku bëggoon yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ba Mhm.
turam sax Mhm, bu si daan àgg eh, da ko koy fàttali Mhm.
ba du Dëgg mun a la, ba dëgg du la.
mun a wëy mhm, kon loolu tamit mhm.
lu lu lu lu lu lu lu màgg la lool lool lool Mhm.
lool ci Mhm.
bëgg bi Mhm, mahabba bi bi bi bi bilaal amoon ci yonent bi dëgg la ak ci yàlla Mhm, ak ñi tamit cofeel bi ñu amoon ci moom mhm, ak fonk gi ñu ko fonkool nga xam ne Seydina Hussein ak Seydina Hassan nu ñu ñëwee ci moom mhm.
ndeysaan bëgg barkeelu ci nodd gi ñëw euh, wax ko ko ba ba ba ba mu nangul leen ko tamit Euh, li ñu doon tamit surtout yonent bi tamit moo tax mu mu nangul leen waaw waaw waaw waaw, waaye- ndëroo woon ak yonente bi it waaw waaw waaye loolu loolu loolu loolu loolu noonu la demee woon dëgg la mhm, kon loolu tamit di ay nettali yu yu daw yaram te Mhm.
te te màggi lool nga xam dëgg ne la sekkoon na kook euh, xalifa yi yi fi yi fi yi fi nekkoon Euh, ak relation ak Mhm.
yeneen saxaaba yi Mhm, ku mel ni Amr ibn Laas ak Mhm.
Abu Ubayda bi ñu nekk Cham euh, daan nañ bàyyi xel Bilaal bu baax a baax yenn xare yu bëri Bilaal la si daan ne Euh, Muaz ibn Jabal ñoom ñëpp Mhm.
daan daje nañ ak Bilaal foofu mhm, Cham mhm.
waaw ba foofu la la la Dëgg mujj la.
laax ko am nga dëgg la waaw kon dañuy gisaat foofu rek nii comme li ñu doon wax rek Seydina Bilal maanaam euh, yar ak teggin ak euh, maanaam euh, fegu ak euh, warma warma warma bi nga xamante ni ndeysaan.
da ngay gis ni maanaam ba muy ba muy ba mu ba mu fi nekkee Seydina Aboubacar kóllëre gi doxoon seen diggante da koo sàmmoon bu baax a baax Mhm.
ngir ne amoon na ci yéene eh, génn génn fa nga xamante ne mooy Médine bu yàgg Mhm.
ba ginnaaw ba yonente bi làkkoo waaw sallallahu alayhi wa sallam làkkoo waaye ngay xool kóllëre gi doxoon digganteem Seydina Aboubacar moo waraloon nit mu laaj laaj ko ndax su fekkee da nga maa goreel ngir man ne sawet waaw.
nga wax su fekkee ngir yàlla nag nga bàyyi ma ma ma wéy Mhm.
loolu tamit sàmmoon na wul kóllëre daal ba ñëwul rek ne damay damay dem damay dem waaye daa laaj ba am lu ko ci leer ni dañ koo goreeloon ngir yàlla ginnaaw gi si la sàmmanteeg kóllëre it. maanaam ak bañ a mettita bañ am si si seen abakar bañ a xaw a mel ni ku xaw a wuuteeg moom rek ci ci ci xalaat.
waaw.
moo taxoon it mu xaw a ne ci wetam. ba Mhm.
keroog mu fiy jóge Eh, ginnaaw gi it da ngay gis tamit eh, sàmmonteeg Seyna Omar ci kilifteef Mhm.
eh, dafa feeñaat bu baax ba ba mu dajeeg moom fi nga xamante ne mooy Syrie Mhm.
nga xam ni Syrie eh, ginnaaw ba ba Seyna Omar di dem Mhm.
ngir ngir fatxu ci ngir fatxu gi xa fatxu gi gën a leer Mhm.
eh, nga xam ni islam gi da da- da daa waroon a yaatu bu baax a baax biir Syrie Mhm.
naa yooyu sax si biir xare yi lañ koy nettaliwaat bu baax.
dinañ ci dikkaat.
nañ ci dëkkaat waaye da ngay gis ne ba mu dajeeg Seydina Bilal ba mu ko joxee ndigalu noddu Seydina Bilal nangu kilifteef Mhm.
ak euh, fexe jëme jëfe ndigal waaw.
euh, moo taxoon it euh, mu noddal ki nga xamante ni euh, mooy Seydina Omar nga xamante ni moo nekkoon xalif Mhm.
euh, nekkoon sangu jullit yëpp jamono jooju Mhm.
nga xam ne tamit ba mu dellusee biir Màkka ak gént gi nga xamante ne rek wax nga ko gént gi nga xamante ni géntoon na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jàmbat ci ni mu ko mën a bàyyee noonu Mhm.
euh, mën a ne ci àdduna yonente bi ne barsak wala ne àjjana waaw.
euh, waaw ba ba tax waru ko mën a siyaar si Siyaar si.
loolu tamit mu lay wan wan ni nekk maanaam siyaar nu mu amee solo ci Siyaar kilifa am solo lool.
ñun moom ñu ngi koy dagaan bu baax a baax yonente bi moom laata ñu fiy jógee moom incha allahu rabbi am nañ yéene moom yombal bu dem baax.
dem siyaare ji ko bu baax a baax a baax a baax dem siyaare ko ay yoon yoon sax waaw ngir xajul- ne xajul si benn sunu yoon.
bëgg bi nga xamante ne bëgg nañ ko Médine ak Màkkatal mu karama ko Waaw.
yà yàpp naa ni moom il faut laa laata ñu fiy bàyyi ko moom Mm.
di ñibbi ji barsak waaw waaw.
boobu moom nañ dem dem siyaare ji bu bu baax a baax Amiin.
ngir ne siyaar yonante bi ngëneen yi ci nekk ak tawfeex gi ci nekk Waaw.
ak maanaam jullit bi ni mu ko waree bàyyi xel Mhm.
euh, war ko def dund ak xolam waaw war Euh, na ko waaw, jullit bu ne bi war na am war na yéene ko boobu bu bëgg baax a lool.
baax a baax Mhm.
même bu ko defut sax mu am ci yéene Mhm.
ngir ne yéene la ñuy fay waaw.
euh, même bu ko defut sax mu am ci yéene Mu am ci yéene ziyaare bu ji baax.
yonante bi sallallahu alayhi wa sallam Mhm.
euh, nu ko ku tedd ki bëggee woon rek Dëgg la.
euh, te gis nga nu mu demee mujj gi Mhm.
euh, cofeelam ak euh, bëggab yonante bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Mhm.
euh, dafa amoon yéene dem ziyaare ji yonante bi Mm.
sallallahu alayhi wa sallam waaye gàllankoor amoon ci Mhm.
ba jotu koo def waaye lu doonoon jàmbatam lu ci ëpp moo nekkoon ñàkk a dem ziyaare yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Mhm.
kon ziyaar euh, loolu day dellu siwaat rek ci dunduk Seydina Bilal Mhm.
ngir ne euh, ziyaar boobu moo ko yóbbee it Mhm.
mu dem ba ci biir Médine ba delluwaat ci rawdu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ziyaar ko dajeek dajeek ak ak dajeek njabootu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Seydina euh, Husey Huseyn ak Seydina Hasan Mhm.
ñoom it ñu dagaan ci moom it Mhm.
ngir bëgg fàttalikuwaat eh, mu noddal leen nodd gi mu daan noddal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Eh, kon ni nga ko waxee rek nodd googu ba mu jibee Mhm.
eh, maanaam eh, képp ku nga xamante ne rek yaa ngi parce que na- nodd gi day mel ni waxtu fajar la ko def naan ko ñu bëri doon nañ dallu waaw waaw.
waaye bañ déggee eh, bañ déggee Seydina Bilal kàddu gi Mhm.
di jip Mhm.
eh, maanaam eh, seere gi mu doon seere ba mu see wax gi mu doon wax eh, lay leer ni kàddu googu mu doon wax kàddu kàddu imaan yooyu noonu Mhm.
mënu Mu yee- mënu mënu mënu ba mu yeggee ci yonente bi rek mënu mënu mënatu koo wëyal Mhm.
mënatu koo wëyal ba loolu moo ko defoon crise boo xamante ni crise bu yéemee yéemee loolu nag muy dolleekuwaat ci cofeel Mhm.
fu muy toll ci nit da ngay dem ba waaw boo tuddee turam wala nga gis lu bokk ci moom boo sàggantuwul da ngay da lay yóbbu fu yéeme yéeme fu kawe kawe ngir ngir bëgg moom bëggam moom da ko doon manifester physiquement ak es- eh, ci ci zaahir ak ci baatin ci zaahir ak ci baatin te loolu it maanaam waa ko waa Medina déggee ñoom ñëpp dañoo màbb ñëw si jumaa ji yaakaar ni yonente bi dafa jógaat Eh, te loolu it bañ ko defee ñoom it comme ni nga ko waxee bañ ko defee rek eh, bañ ko defee ba ñëwaat ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci biir eh, masjid al nabawi yi eh, da ngay sentir ni maanaam eh, maanaam takkook kilifa nu mu amee solo eh, takkook gi yón- gi Seydina Bilaal takkoo nag yonante bi eh, moo waral nag tamit eh, maanaam jeexit googu noonu eh, mbokk mboolem jullit yi fa nekkoon amoon ko ci Ci moom.
nodd gi nga xamante ne nodd nodd na ko fa te nodd gi sax jotut a yàgg àgg àgg daanaka nodd gi àgg- àggul ndax Waaw.
crise bi nga xamante ne amoon na ko kon dañuy eh, waaw dañuy bàyyiwaat xel rek ni yii moom yu am solo la yoo xamante ne mun nañ ci jàngat eh, nu ñuy nu ñuy nu ñuy takkook imaan nu ñuy takkook islaam nu ñuy takkook ihsaan bu baax a baax a baax ak bëgg yonante bi bëgg yàlla bëgg yonante bi ak bëgg mbooleem saxaaba yi bëgg mbooleem gaañu baax ñi ak sa kilifa comme niñ ko amee rek ñun ñun murit ak bëgg bi ngay bëgg képp ku nga xamante ne rek ku baax la ak euh, képp ku nga xamante ne rek mooy sa kilifa mooy sa njiit Euh, ak euh, noonu daal lañ ciy wax foofu lañ ciy yam nag naa buñ ko bë- buñ bëggee wax léegi moom dañuy xaabaabal te loolu la ñuy Jàngat loolu la yi- ñuy waytu loolu la ñuy maytu bu baax a baax jàngat yi kon daa dañuy bëri bàyyi suñ ko jaale rek euh, euh, mu ñëwaat ci njàngat bi laata ñuy xuusaat ci waxtaan bi waaw waaye xanaa sax daanaka euh, loolu la rek ni nga ko waxee rek Mhm.
moom ko kilifteef ak bëgg ko day dem ba nga xam ne moom euh, nit ñi nit ñi buñ ko gisatul it dinañ xoolee kilifa gi ci yow Mhm.
waaw ndax dinañ gis jeexit yi ci yow di ko di ko di ko di ko di ko wër ci yow di ko di ko barkeeloo Mhm.
waaw bilaal noonu la demee noonu dam gi Mhm.
Euh, ndax bëgg gi ñu bëggoon yonent bi moo taxoon dañ doon wër lu leen di connecté waat ak yonent bi lépp luñ ci mën a am rek dañ koy jël dëgg la moo tax bi nga xamee ne bilaal mu ngi fi te noddam gi moo ñi connecté waat ak jamono yonent bi Mhm.
ci lañ ko nodduloo waat wane ne amoon nañ cofee lool Mhm. Mhm.
ci ci ci ci yonent bi ci yonente bi dëgg la alayhi wa dëgg sallam.
la waaw Mhm. xam Di- naa waaw.
kon dañuy ñëw rek ci eh, Seydina Bilal eh, mujjug dundam ngir ne mujjug dundam moom it am na yu bëri bëri yoo xamante ni eh, mën naa mën naa bàyyi xel waaw Eh, kon dañuy bàyyi rek nga dugg si.
waaw bilaal mujjub dundam eh, Cham la ko la ko defee Mm, ni ñu ko waxee sànq eh, delluwaat na fa daa mel ni yéene boobu la amoon moom faatu ci biir jihaad mun nañu wax ne jihaad a ko yëkkati woon Mhm.
jihaad ci yoonu yàlla Mhm.
bi muy demee foofu am na ñu naan eh, jamono peste moo ko faat kon mun nañu wax ne daa shahid Mhm.
waaye eh, lu mot a vérifié waat la dëgg la waaw waaw.
lu mat a vérifié waat la Mhm.
waaye Cham daal la faatoo muy tawat muy tawat euh, soxna yi di tàmbale di jooy mu naan leen loo leen di jooy Euh, ñu ne ah da nekk ci ci ci ci buntu faatu faaw ñu jaaxle mu ne yéen kay bu leen jaaxle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne ci waa àjjana laa bokk Mhm.
kay su ma su may faatu nii kay lii kay xéewal la ci man waaw lii kay du musiba waaye xéewal la xéewal dëgg ndax waaw.
tey laay dem daje ak sama soppe yi Mhm.
waaw muy yonente bi Seydina Abubakar ak ñeneen soppe yi waaw mu ne kon loolu xéewal la Mhm.
xéewal la ci man Mhm.
waaw kon foofu foofu la la la faatoo am na ñu ne bi muy faatu am na soixante ans am na ñu ne cinquante ans Mhm.
dañuy werante daal ci âge am waaw.
am na dix ans d'écart yu ñuy werante Mhm.
ci ci waaw.
atam Mhm.
am na ñu ne dafa xawoon a maase ak Seydina Abubakar waaw waaw loolu tamit waaw am na ñu wax ne nañ ko. Mhm.
Seydina Abubakar moo ko magee woon fukki at Mhm.
waaw loolu waaw.
loolu moo tax bi Mhm.
muy faatu Mhm.
mu toll at ak Seydina Abubakar ak ak yonente bi Ah, waaye c'est- c'est- mun nañu wax ne amoon na juróom fukki at ba Mhm.
juróom benn fukki at loolu tamit di lu lu lu lu ma lu ma yéem ci saxaaba yi ñu si ëpp Mhm.
dañoo waaw.
teel a faatu daal teel làkk waaw.
juróom benn fukki at ba ci yonent bi dëgg la sallallahu alayhi wa waaw sallam waaw juróom benn loolu fukki day- at moom dañuy teel a loolu feesal seen seen seen waaw.
dund kay loolu- loolu lu yéeme la waaye seen dund day day teel a fees dell kay, waaw, waaw, day fees dell dell ba nga xamante ni daanaka àdduna dootuñ ci bëgg dara sax waaw.
daanaka lool sax daanaka mooy gudd fan waaw loolu mooy gudd fan dëgg feesal sa dund ba dootoo bëggati dara dara Waaw.
dara lu dul maanaam dellu dellu àjjana rek loolu moom noonu la demee woon de waaw ci gar mën naa kii daal mën naa sàkku moom feesal teel a feesal sa dund rek waaw teel a am ay ay ay daraja nga xamante ni xam naa sax ci loolu la ñuy tëjee Waaw.
maanaam dañuy dugg ci ci ay jakleem Ay jagleem.
jakleem waaw bëri na jagle yi nga xamante ni am na ko Waaw.
Mhm. kon dañ lay bàyyi rek dafa am jégle wax yu ci mu bokk waaw.
ak yeneen saxaaba yi Mhm.
muy bokk gi mu bokk Mhm.
badar fekkee gi mu fetti fekkee Hudaybiya Mhm.
fekkee gi mu fekkee fatxu Makka Mhm.
yooyu yëpp bu si ne fekkee ko dafa am ay jégle yu si ne fekkee dëgg la mhm.
waaw fekkee badar fekkee am badar nga jéggal nañ la say say bàkkaar say bàkkaar mhm. dañ lay Tey- bàyyi yàlla waaw baa yàlla nañ la waaw dugg yaa ngi sa àjjana mooy firdawsi Firdawsi ak waaw yonente bi sallallahu alayhi wa daraja sallam yu kawe sax mhm.
waaw loolu daraja- daraja yu kawe la féetee ko kaw fekkee euh, kii euh, fekkee Hudaybiya xuday bi jaayante Hudaybiya Mhm.
te te suñ boroom Mhm.
leeral seen ngërëm Seen- ci suuratul fatxi dëgg la, loolu waaw.
tamit euh, garantie la ci safara Mhm.
yonente bi wax na ko Mhm.
moom fekkee na Hudaybiya est-ce que euh, fekkee na Fathu Makka Mhm.
waaye dafa am ay ngëneel yi boppam yoo xam ne yonent bi moo ko ko wax waaw waaw mooy bégalee nañ ko àjjana Mhm.
waaw comme ñee alasharul mubashara bil janna moom tamit dafa am dañ yonent bi bégalee na ko moom waaw àjjana waaw waaw ndax yonent bi toog na ba si yàgg ne bilaal démb di dama gis dama dégg say tànk àjjana ana lan nga lan nga def ba àgg foofu am na sax ay riwaay yu wax ne ana lan nga def ba jiituma àjjana waaw waaw noo ma jiitoo àjjana waaw, noonu- biir noonu la def ba àjjana jiituma dégg na biir àjjana waaw mu ne ko ah loolu de lenn laa yaakaar ne moo ko waral mooy saa su ma yégee ni war naa jàppaat damay jàpp te su ma jàppee wu noppi damay julli Mhm.
waaw Mhm.
su ma Mooy demee ba naafila yëg ne war ñaata naa at?
jàppaat rek damay jàpp damay yeesalaat sama njàpp Mhm.
te saa su ma yeesalee sama njàpp dinaa julli Mhm.
waaw loolu tamit am na ñun ko interprétation waaw yu bëri tamit parce que loolu lu am solo la ci yeeslu boobu noonu maanaam saay boo yeesloo rek maanaam gën day baax euh, nga nga nga dawal ñaari ràq waaw loolu da ko daan def guddi yi da ko daan def bëccëg yi daanaka daaw ci tayal nañ ko mën a waxee léeg-léeg nit ki moom daanaka bu yeesloo rek day yaakaar ni julli farata moo war a Waaw, moo war a waaw.
tax mu mu mu mu julli waaw Eh, maanaam saay boo boo jibee naafi la boo boo nekkul ci njàpp war ngaa mën a yeeslu daal di naafi la waaw li ngay naaf boo jubee it jib farata it da ngaa war a yeeslu soog a julli farata dëgg la Euh, yeeslu moom daanaka dang nit ki julli ci boppam euh, day baax mu koy takkoo loolu nag maanaam dafa bokk ci ay kaaraange yu am solo te nit ki moom looy gën a yees di gën a sell di gën a jege sunu borom rek ak di gën a maanaam mën a dékku disposition yi nga xamante ni nit ki waaw eh, da koy a yittewoo pour mën a dékku leeru sunu borom dëgg Euh, te yeeslu yooyu noonu mu daan def it euh, bëriwaay bi yëpp euh, saay bu yeesloo yi day def ñaari raaka daal di euh, soog a defaat la ne nu mu ciy def Euh, loolu kenn ku ci nekk boo ko jikkoo rek da ngay gis ni jikkoy julli dëgg day ne ci yow waaw waaw nit ki moom mënoo takkoo njàpp ak ak ak di naafi la ña- naafi la loo xamante di julli loo xam ne du dul far du du farata nga koy def Muy te doo te doo te doo te doo te doo te doo te doo am dëgg-dëgg ngëm Mhm.
Euh, ku ko takkoo rek maanaam ngëm moom day ne ci yow bu baax a baax Mhm.
Euh, ginnaaw gëm it maanaam da ngay day dëpp ak sunna Mhm.
Euh, da ngay dëpp ak sunna gis ngeen sunna googu noonu booy xool ñu ngi ko royee ci Seydina Bilaal waaw nde yonente bi maanaam ni mu ko indeewaatee ci xisa googu dañuy wéralaatal ni waaw.
lii di bilaal di def ni kenn ku ci nekk ku ko def War nga nga ko yaa ngi def.
sama sunna waaw ndax Kon bu yonent bi loolu- da ko validé daf ko validé waaw daf ko validé te loolu yëpp da- day bokk si sunna sunna si yonente bi Euh, saxaaba di def loo xamante ni yonente bi euh, maanaam euh, validé na ko loolu day duggaat ci sunna rek dëgg la Euh, kon euh, jàpp am na solo lool Mhm.
rawatina saay boo jàppoo nga naafila ñaari ràq Euh, xam naa dañ lay bàyyi nga xuusaat ci ngëneel yi rek kon ngëneel kon yi moom loolu la daanaka yeneen ngëneel yi sax tuddoon naa ko dëgg la bii moom laa kon yonent bi bégalee na ko àjjana àjjana mhm, ci kuy dund mhm, te faatoogul dëgg la waaw Euh, yeneen yi mooy ñu ko waxee mhm.
ku toll ni Seydina Omar dem ba tuddee ko Seydina waaw Seydina waaw Seydina Bilal Euh, Seydina waaw loolu tamit ngëneel lu màgg la ku toll ni Seydina Omar moom mhm, daanaka lu mu la lu mu wax rek dëgg la noonu la demee mhm, waaw ak euh, beneen bi mhm, mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yi muy wax ci moom ni waxoon naa ko sànq mhm.
mooy asaabiqul habasha xam nga sax waaw waaw waaw mooy njiitoon ñi ñi ñi cos nit ñu ñuul yi rek waaw waaw.
bilaal mooy seen ji
Euh, te it daa bokk ci ay jakleen jakleem euh, ku ko ku ko ku ko merloo sunu borom mere la waaw loolu tamit muy lu lu jër a lu lu mët a lu mët a xam daal te te muy jagle loo xamante ni Seydina Abubakar Seydina Bilal jagoo na ko waaw te loolu loolu tamit euh, Seydina euh, yonent bi Seydina Abubakar la ko wax dem ba merloo Bilaal waaw waaw ba merloo bu dem ba ñi yonte bi di di di artu Seydina Aboubacar ci Aboubacar merloo Bilaal kon dëgg la macha allah kon waaw Bilaal waaw bu meree rek suñu borom mer kon dëgg la, loolu tamit ah.
njegle bu rëy a rëy rëy te it lu indi xiste googu tamit mooy mooy Abu Sufyaan rek waaw waaw Euh, Abu Sufyaan euh, daa yéex a dugg ci diine islaam Mhm.
yéex gi mu yéex a dugg ci diine islaam it Mhm.
euh, ba mu ba mu fekkee ki nga xamante ne comme ni nga ko waxee rek euh, Seyna euh, Sey- ñoom ñoom Salman Al Faris ak euh, Suhay Suhayb ak ki nga xamante ne mooy Bilaal toog benn jataay Mhm.
bokk benn jataay moom ba mu àndeek gàngooram ñëw di di di di di di di jege si Mhm.
te jamono jooju it euh, Seyna Abubakar mi ngi woon ci wet gi waaw mi ngi woon ci wetu ñoom Bilaal ak yu demee noonu ñoom it dañoo nee woon euh, kii kii kii kii de euh, maanaam jaasi yàlla gi jaasi yàlla gi ba léegi da- dalagul ci dëgg-dëgg noonu la loolu nag comme say comme kii comme Abu Sufyaan sangul sang la woon si sangu waa Xuraysh waaw euh, Ababa Seydina Abubakar ne ne ne- ne ñoom Bilaal lii ngeen wax Mhm.
kii nga xamante ne mooy Seydul Seydul Xuraysh Mhm.
euh, loolu waxuwul Mhm.
waru leen ko kii daal wax leen waxee leen ko noonu kii da ngeen ko war a wormaal daal waru waru leen ñëw di ko mel ni ku le- ku koy kii wax yooyu Mhm.
Seydina Abubakar na ba mu ba mu ba mu waxee loolu dafa delluwaat ci yonante bi di ko xamal ni eh, ñoom Bilaal ñoo wax lii Mhm.
si la ko yonante bi tamit ak ak ak mën a tontam ak leeru kàddoom ne ko baa merloowu leen Mhm.
su fekkee da nga leen a merloo moom sunu borom xamal ni sunu borom mere na la. parce que ñoom ku leen merloo rek sunu borom mer mere la. ku merloo Bilaal. wala Salman wala So- Sohayb Mhm.
sunu borom dalay dalay dalay mere. loolu moom ñoom ñoom am nañ taw kii boobu noonu ak jagle googu noonu. muy lu muy loo xamante ni tamit ñu war koo xam bu baax a baax jaajëf suñ ko jàll kon boo mënee kii rek wala ñu wala ñu ñaan.
am na solo de moom kay mot na moom daanaka.
kon dañuy sant yàlla rek di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di santaat ki nga xamante ni mooy Seydina Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu di ko di ñaan yàlla nañu sunu borom tas seeni ngërëm tas seeni tas seeni tas seeni barke euh, maanaam dugal ñu seeni seeni ron ñu ne seeni ñu nekk seeni seeni seeni seeni seeni seen seen njaboot dañuy sant rek dañuy sant rek bañ leen bañ leen amee dañuy sant bañ leen amee euh, maanaam di xam seen di jéem a gëstu seen dund ak di ko di ko dund di ko jéem a dund loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax euh, di ko royee sunna waaw. ndeysaan. macha allah.
kon dañ lay bàyyi rek boo mënee waaw waaw waaw sant sant nañu bu baax a baax ni nga ko waxee rek xam naa fàttaliku nañ ku tedd ku ci saxaaba yi ku- ku dundam fees dell ak njàng nja- jàngat yu am solo yu bari njëriñ waaw xam naa- xam naa rek ni ñuy sant bu baax rek waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah